mi ngi lay gërëm di la sant di rafetlu bu baax sa taxawaay si dëkk bi parce que même boo dëkkul Bogal wala Bounkiling wala Sédhiou yàgg na noo déglu sa si li ngay muy si wàllu mbay mi si wàllu élevage mais rawatina surtout ci wàllu éducation bi ngay prôné ici au niveau de Bogal et partout ci dëkk bi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 bu weesoo loolu aussi da nga nek kuy bay di ci wal sam ba nga xam ci tay ji gis nañ lu bu baax li ngay def si dëkk bi ñu ngi koy rafetlu di la si encouragé di la ñaanal yàlla nga yàgg fi lool te wér may ñu ko ñu yàgg kaa feete ay at yu bare bari ba xam si bu ne bu ñu fi ñëwee ñuy wax yeneen i yeneen yeneen cérémonie je pense que aujourd'hui ñun loolu mooy suñu objectif te di la renouveler encore une fois accompagne administration bi si lépp lu ngeen soxla ñun ñu ngi fi pour di leen jàppale di leen gunge si lépp lu ngeen bëgg aussi mais aussi dafa am lu am solo lu xam si dama bëggoon ñu soulever ko ndaw fi ensemble ñu waxtaan si parce que bu ngeen seetloo fan yëpp président de la république mi ngi koy wax dafa lancé campagne nationale de la propreté muy wàllu set te jàpp naa ni buñ jaaree suñu mel ni yéen danañu permettre ñu mën a atteindre objectif boobu malgré que administration mi ngi def malgré que nit citoyen ñu ngi def ñu ngi mobiliser wu mais aussi ñu mel na yéen dañ leen see soxla pour ngeen gën ñi see jàppale gën ñee ñaax yi gën ñu see jàppale pour que loolu noonu mu nekk une réussite totale ci dëkk bi su weesoo loolu aussi ñu ngi gis fan yi yëpp yi nga xam ne si jot na fee am muy wàllu violence bi bari na lool lool lool lool si dëkk bi rawatina wàllu ndaw ñi chaque jour mënoo xëy soo ba ngoon déggoo ñu ni rey nañ fee wala gaañ nañ kee te jàpp naa ñu mel ne yéen en tant que éducateur en tant que pédagogue bu basé wu si yéen di di sàmmonte ak li ngeen ñuy digal jàpp naa ne xale yi dana mën a gën a yeewu dana gën a mën a moytu yenn ak de violence yi nga xam si mooy am parfois si dëkk bi je pense que si yéen mën nañ see fondé wu mën nañ see basé wu également pour mën a atteindre objectif boobu en tout cas nguur gi mi ngi fi pour askan wi mais yéen it dañ leen di woo si loolu noonu ngeen gën ñu sa jàppale parce que ñun ñëpp Sénégal yi tax a jóg te yéen rawatina si yéen ñi xam si yéen fi teewal diina ji te dañ naan la spiritualité ak la temporalité ñoom ku nekk ñoo war a mën a ànd mais wur ñoo mën a xaajali ko su weesoo loolu aussi sëñ bi maa ngi rafetlu bu baax a baax sa teewaay di ñaax rek comme ñun ñëpp ay ndaw la na ndaw ñu gën a yeewu parce que comme que dëkk yi ni war gis nañ aussi yi fi am nañ gën a yee suñuy ndaw ñu gën leen a ñaax ñu leen kët dëkk jamono moo toll fu xam si nit ki il faut muy yeewu il faut nga am éducation jërul ngay dem ba Europe wala fu mën doon pour mën a tekki boo toogee fii si dëkk bi ngaa war a mën a tekki surtout loolu xale yi gën see gën see ñaaxal xale taalibe yi ñun ñëpp ñu gën see jàpp pour que Sénégal parce que aussi si xale yi lañ compté pour que dëkk bi mën a jëm kanam parce que xale yi ñooy dooni ëllëg mag te mag ñooñu lañ soxla ëllëg ñu fekk ñu ñu formé ñu am formation bu baax pour ëllëg suñu dëkk bi mën a avancé aussi su weesoo loolu aussi ñu ngi lay jokkeel bu baax di la ñaanal si bis bi nga xam ne si moo si boole tey di la di ñaan di ko sàkku si waa xadara bi si taalibe yi fi teew yëpp seen teewaay rafet na di leen nuyu encore une fois sur président de la yëpp di sàkku ñaan si réew mi pour li nga xam ne si mooy jàmm ji fi am mu gën a sax stabilité fi am mu gën a sax dëkk yi nga xam si aussi moo ñu wër parfois mu am ay problème mais yàlla saafara ko nga ñaañu bu baax a baax pour que li nga xam si moom la ñuy gouvernement bi di def en mettre en œuvre yàlla jàppale ni ko may leen kàttan ñu ñu si liggéey ñëpp pour que mën kaa def ak seen yaram ak seen tal ak fekkee su weesoo loolu aussi dama bëggoon a ñëw si benn point rek pour jeexal mooy di la gërëm encore une fois di la gërëm di sàkku si yow ñaan di la wax ni la nga ñaanal son excellence monsieur le président de la république bu baax a baax parce que olof danaan kët boo duggee si gaal da ngay ñaan gaal gi mucc waaye bul ñaan sa ëmb mucc te moom comme que moom la yàlla def mu jiite réew mi nan ko ñaanal fi mu ñu jëmee mu mu àgg nyana ak jàmm ñaanal membre du gouvernement yëpp ñaanal autorités yi nekk Sénégal gi yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi tarixa yëpp fàttewuñ kenn di lay ñaanal que ñëpp lu ñu bis bi nga xam mooy ziar boogal yàlla suñu borom subhanahu wa taala yombalal ñu ko sëriñ bi mu ne ñu ngi rek nañu wala ñu fi teew yépp sëriñ bi mu ne di ci jiital délégation bi nga xam ne moom la ci nguur gi yaba ndax jataay bi ci waxtu wii ñoom وسلم واليوم في ذلك sëriñ bi ma waa ne ñun jataay yi ciy def yëpp mooy daay nga ko wax ci ñu gisanteeg yow ca saal ba waxtaan ak yow ca saal ba la ca des nag ñu xaar ko ba suba ci dimanche mbooloo yi waxtaan ak ñoom itam waaye te jataay bi la moom mooy déglu délégation bi de la ci gox bi te xam itam ni ñu fi nañu ni ko gouverneur waxee sëriñ bi mu ne ñu ngay sant itam ci waxtaanam bi sëriñ bi mu ne kat moom nekk dina wax yoo xam ne jur dégg ne la bu baax a baax sëriñ bi mu ne ñun nag léeg-léeg dañuy wax ne xam ne mooy siyaare bi su xewee dañ koy yebal président de la république banqaas yi ne ci nguur gi itam banqaas bu si ne yebal fa ndaw yebal na ko sëñ mu ne loolu yëpp monsieur le gouverneur sëriñ bi nee na ñu ngi lay sant ci sa taxawaay boobu ak délégation yi nga àndal yépp sëriñ bi mënoon na tax ñoom seen xamante gi turam mu ñëw fii sëriñ bi mu ne ko leen googu itam moom suñu bëreet boobu jàpp na ko te sëriñ bi xamal ko boppam bëreet boobu. sëriñ bi mu ne suñu bëreet bu bokkal ak ak ak Julien sëriñ bi mu ne ñooñu kat lii ay defar lool nanu sëriñ bi mu ne kon kay. قلنا يمكنك الحقيقة حق قدرنا لا بقول لك حق ديني بقول لك حق من بإيدك بقول لك سيدي من القرآن يقول كتاب يباح لتقون من إلى الدين من جيتاو سيدي من القرآن sëriñ bi mu ne ñu ngi sant itam Pape Demba Bitèye mi nga xam ne moo jiite Senelec sëriñ bi mu ne ñoo ñi mu yebaloon fii di ko dalee ci délégué bi nekk jigéen door muy yaay ak Mamadou Faye mi nekk Sédhiou liggéey nañu ci dëkk bi ci wàllu courant bi lu mucc ayib sëriñ bi mën a kon kay ñu ngay sant bu baax sëriñ bi mën a daal monsieur le gouverneur liñ lay yóbbante ci président de la république mooy gërëm ko kontaan lool yëgal nañ ko bés bi yónnee na ndaw mu taxaw ndaw lu mat ndaw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 waaye doonul l'histoire boo xam ne dañ koy dégg te fekk ñoom xamuñu ko déedéet loolu de sëriñ bi mu ne wallahi du loolu de sëriñ bi mu ne couleur jataay bi la xam ne diine dimbalante la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko mu wax ko itam ca téere ba alquran alquran ne dimbalante leen ci ragal yàlla ak mbaax lii nag sëriñ mu ne képp ku ñëw teew ku ci def dara yaa ngay dimbalante ak ki woote woote bi ca ak dimbalante ca mbaax nga ak yiw bi alquran doon